ginnaaw bi mu leen nuyu waatee bu baax di leen ziar sëñ Madické Dramé maa lay nuyu bu baax a baax nuyu sëñ sëñ Cheikh Ndiaye sama àndandoo bi moog màggat taalibe sëñ Saliou lu sepp daal yéen lay àndal si information yi ak euh, sëñ Daouda ginnaaw la di nuyu sëñ Babacar euh, di nuyu di nuyu sëñ màggat Amed Lamine Niang maa lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokk yëpp nuyu waa SeneInfo International yëpp donc fi ñuy commencé information yi mooy que ni Ukraine dafa mi ngi menacé États-Unis ni bu fekkee ne États-Unis dafa arrêté maanaam Donald ba dafa ñëw arrêté aide militaire yi mu doon jox Ukraine ñoom si ay weer yu néew dinañ defar bombe nucléaire Euh, loolu la wax euh, ministère Ukraine bi yor wàllu défense moom moo wax loolu ni daal dañu leen dañuy continuer di leen jàppale mënuñu ko ñoom ñu def seen bomb ñu defar seen bombu nucléaire ba tey bokk na ci information yi mooy que ni euh, troupe ukrainien yi ñoom actuellement nii dañ leen attaqué waa Russie ñoo leen attaqué lu tollook cent kilomètres ci front bi Euh, particulièrement si côté euh, Koroxof bi ak euh, aussi nee na soldaaru Russie yi attaqué na plusieurs maanaam côté yu bëri dañ leen dañ leen attaqué si dëkk bi ñu naan Koroxof ak Pakorov Pakorov quoi moom waxoon na ni fii ak au moins Russie dina nangu. mais ba léegi euh, waa AICRA ñoo ngi maintenir aussi tamit ne centre logistique yu ne centre logistique yi presque euh, Russie yàq na yëpp surtout usines yi euh, surtout usines yi nekk côté Pakarovka neenu eh, neenu industrie yu bëri yi ne côté boobu waa Russie yàq nañ nee na commandement bu unité artillerie yi ñoom ak kuréel bi euh, artillerie yi nekk côté Koura Koroxof dafa déclaré ni turu bu turu seen turu bi actuellement ni pare nañ pour retirer wu si côté euh, si côté si côté yooyu mais actuellement ni li ñuy xaar mooy ordre boo xamante ni dafa jóge si kaw pour ñu jógee pour ñu jógee côté boobu noonu. moom commandement bi loolu wax neen actuellement ni daal euh, ñoo pare ñoo ngi waaj pour jóge foofu mais dañuy xaar ordre ordre bu jóge si kaw maanaam duñ fa jóge daal te jo te joxewuñ mais actuellement nii daal euh, waa Russie sëkkatal na leen côté boobu ba tax na benn expert euh, militaire bu CDS moom dafa ni ligne de front yi actuellement nii boo moytu dinan ko déplacer trente ba trente cinq kilomètres côté ouest bi Euh, fii ak ah, fii ak ah, décembre général bi mu yoroog Marsenko dafa ni dafa avertir na situation yi actuellement nii dafa critique mais li tax dafa metti li tax mu metti mooy que ni dañu manqué ay ah, ay munitions yoo xamante war nañ jàkkaarloog soo lu Russie ak ay nit ñoo xamante ni war nañu yore munitions yooyu ba tax na neen troupe Ukraine yi actuellement nii daal euh, dañu limité Euh, pour capacité résistance yu yu Russie yi maanaam daal seen euh, dañu am problème soldat dañu am problème ñu gàddu armée pour xeexee waa Russie yi ba tey bokk na ci information yi euh, diplomate yu Russie yi ñoom dañu envoyé nee na diplomate yu Russie yi dañ ni missilu Scalp bi nga xamante ni Kiev bi nga xamante ni France bëgg na envoyé waa Kiev Euh, ñoom waa Russie waxtaan nañ si ak euh, ambassade bu France bi ambassade France bi nekk euh, Russie porte parole diplomatique Russie réagir nañ si loolu nga xamante France nee daf koy def ba tax na nee na moom li li nga xamante ni moom ministre France de la défense li mu wax ni day transférer missile Escalp Kiev ñoom waa Russie fàttali nañ ko ni que Euh, ak lu mën a am réponse yu sévère yi waa Russie ba léegi ñoo ko teg bépp euh, missile boo xamante ne ni jox nañ leen ko mu missile boo xamante ni longue porte la mu dugg biir Russie ñoom waa Russie dinañu fayu si ki nga xamante ni moom moo jox waa Ukraine missile boobu. ba tey bokk na si information yi Donald Trump dafa proposé nommé bëgg nommé ancien député Tulsi Gaba Tulsi gabar daf ko bëgg a nommé directeur enseignement national américain nee na moom Gabbard moom nekkoon na officier vétéran si guerru Irak guerru Irak bi nee liggéey na aussi tamit si Fox News. moom euh, représentant bu parti démocrate la mais après par la dafa quitté jël euh, euh, dem soutenir Donald Trump ci élection yi ginnaaw bi Donald Trump gagné nag Donald Trump daf leen daf ko bëgg a nommé ministère bi yor wàllu renseignement waaru wàllu renseignement national américain directrice renseignement national américain ba tey bokk na ci information yi euh, neenu nouveau chef républicain bi nekk Sénat euh, bi war a euh, jiite Sénat bi war a jiite Sénat américain bi moom John Sutin nee na moom bokkoon na si ñi nga xamante ñu doon wax ne ni jàppale Ukraine neen John Sutin nag moom nekkoon na siège Sénat bi depuis 2004. aussi suis nekkoon maanaam adjoint euh, moom moo adjoint euh, chef de républicain euh, nekk na nekk longue date aussi tamit poste pendant 18 ans par la suite si décidé démissionner nee na mars bi milier débat débat bi Euh, nu waroon euh, républicain boleke boleke woon euh, aide militaire yu Ukraine yi mooy fond bu rëy bi doon laaj rek ba débat bi bari woon trop si Sénat bi moom moom débat bi bari woon trop si ci Sénat bi ci biir ci États-Unis moom par la nee na euh, moom dafa dimbali woon moom dafa ne nan dimbali Ukraine moom euh, nouveau chef de sena bi aussi tamit euh, jamono yooyu waxoon na nañu envoyé li nekk seen abatance mooy envoyé arme Ukraine pour Ukraine gagner guerre bi actuellement nii nag moom moo jiite Sénat bi moom moom John Steen te ku nekk xam ne Donald Trump moom dafa ni carrément guerre bi da koy fay aide aide militaire yeeg yëpp da koy te actuellement nii kii moom moo jiite Sénat bi te moom li mu yàgg di souligner mooy que ni nanu dimbali Ukraine bu ko defee ñu gañe guerre bi ñu xool nag tey euh, ban kii ba tey bokk na si information yi euh, Zelensky dafa wax ni Allemagne dina leen envoyé système défense aérien bii ñu naan Iris d'ici fin de l'année maanaam si côté décembre bi président Zelensky moo ko wax si nee na si benn euh, entretien boo xamante ni doon na ko def euh, téléphone ak euh, Lapsor c'est que Lapsor digee loolu par la suite moom si la génn wax ko nee na si décembre bi chancelier Allemagne nee na engagé na pour jox leen système de défense aérien bi bi naan supplémentaire équipe missile Iris. nee aussi tamit euh, dañ leen maanaam dina leen jox huit euh, huit système euh, iris nee na neuf système yi iris huit wala neuf système iris dañ dina leen ko jox nee na yeneen deux yi dina leen ko libéré si si maam deux iris yi dina leen ko envoyé si année bi maam ay mois de décembre yi des deux mille vingt cinq si la leen koy envoyé si la leen koy Labsor di envoyé Labsor moom moo gën a engage si guerre bi moom moo ko moo Joe Biden moo Joe Biden ak Paul Ndiaye ñoo gën a engagé si guerre bi ba tey bokk na si information yi moom président bu Azerbaïdjan euh, dafa déclaré ni France bokk na si ñi yàq jaww ji ndaxte nee na France li mu def si ay essais nucléaires dafa bare dafa bari trop moom France ba nee na nee na euh, jamonoy colonial bi ñoom waa France essayé nañu euh, lu tolloog 17 sept essai nucléaire biir Algérie jamonoy colonial bi ba tax na daal euh, nee na jaww ji li ko yàq yëpp maanaam France loxo mi ngi si ndax li mu du li mu li mu def say essai nucléaire dafa bare trop ba tax na yaakaar naa ne kon nucléaire benn nucléaire bu wàcc si àdduna bi moom xam boobaa jaww ji nu muy def surtout est nucléaire yu jamono yi nga xamante ni moo gën a moo gën a diis moo gën a doy waar lépp moo tax daal doy na war daal ñu ñaan yàlla xanaa essai euh, nucléaire bañ a wàcc si àdduna bi actuellement nii ba bokk na si information yi l'amiral euh, Rob Bauer chef de euh, communi euh, communauté bu militaire bu OTAN dafa déclaré ne bu Russie fekkoon ni Russie yorul arme nucléaire kon dirigeant wu occidentaux yi dinañu peut-être que dinañ déployer seeni troupe pour dimbali Ukraine mais Euh, russi li mu nekk li mu yore bombe nucléaire moom moo tax ndaxte nee na da ngay xool comme euh, bi ñu xeex ak taliban biir Afghanistan nee na situation euh, situation maanaam jamono bi ñuy xeex ak taliban yi ñoom ñëpp ñoo àndoon mais mais taliban yi ak actuellement nii si Ukraine dañu wuute. dan wute ndax Russie dafa yor bombe nucléaire te loolu la tek comme comme arme loolu motax tax loolu moo neen nucléaire bi daal mo modifier fondamental sen calcul mais bu fekkone nekul nucléaire ba léegi euh, occidentaux yi ak sen alliés yi nañ fi sen force ah, mais nak euh, deug la ñom si li ñuy wax moy que ni nu fa seeni force mais da nga gis ay volontaires yo xamanteni dañuy sol ay drapeau OTAN ak ay oto yoo xamante ne ay véhicules yoo xamante ne ay oto OTAN la man daal xam man daal xaw ma lan la ñu manqué rek pour que ni ñu ni ñoom ñoo ngi si biir guerre xanaa frappe ni frappe si industrie Russie yeeg comme fi ñuy lancé missile yeeg yooyu ak seen euh, seen F16 yeeg yooyu xanaa yooyu la ñu di bombarde biir Russie yeeg yooyu. waaw loolu daal moo leen manqué waaye bu dee ay troupe yëpp moom ñoo ngi si biir terrain ba tey bokk na si information yi journal bii di euh, Bloomberg dafa déclaré ni mandat wu Trump bu bees bi dana nekk loo xamante ni euh, lu catastrophe lay doon si Union européenne Bloomberg moo moo wax loolu nee na estimation yi euh, actuellement ni intention wu Donald Trump euh, de dana nekk changement bu euh, bu changement bu ñëpp di teg seen bët si digganteem ak Europe neen Europe notamment euh, soutien bi ni dina génn si soutien bi jàppale bi nga xamante mi ngi koy jàppale Ukraine aussi tamit Donald Trump li mu wax mooy que ni dafay génn OTAN aussi tamit euh, euh, dana tere euh, kiw douane bi dinañ ko yóbbu dina ko yóbbu ba vingt pour cent ba tax na nee na loolu nekkul loo xamante ni lu baax la ci Europe ñoom ñoom européens yi nag surtout français yi ñoo ngi wax naan droit de douane bi bu ko yóbbu ba vingt pour cent dana nekk loo xam ci États-Unis lay gën a méttee ndaxte États-Unis dafa bare ay indi ay ay entreprise biir Europe waaw te bu boobaa euh, ñoom comme bu leen tegee vingt pour cent si douane bi ñoom ñoom dinañ ko delluwaat américain te ku neen te ñoom linu wax mooy que ni américain yi ñu ëpp entreprise que waa européens yi biir États-Unis aussi euh, Bloomberg wax na ni situation union européenne daal dana nekk loo xamante ni lu lu lu doy lay doon si tuuru Donald Trump bi. si kaw nag nee na soutien sénat sénat américain yi jàppale Donald Trump mais neen actuellement membre yu sénat yi euh, ñoom actuellement nii euh, Donald Trump moom moo fa am majorité moo fa am majorité moom Donald Trump mais bu fekkee jàppale nañ ko si li mu bëgg daal euh, loolu yëpp man loolu yëpp Donald Trump def ni woon dina ko def surtout droit de droit de droit de douane bi droit de douane bi nag moom moo gën a tiital européen yi ba tey bokk na si information yi secrétaire euh, d'état américain Antonio Blinken moom dafa ginnaaw bi mu demee Bruxelles de jàkkaarloog euh, euh, Mark Rutte directeur général bu OTAN moom dafa déclaré ni administration yu président Joe Biden dinañ continuer di fournir assistance militaire Ukraine ba deux mille ba deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq nen aussi timit euh, yenen euh, ki yi nga xamanti won nañ ko jox euh, won nañ ko fournir Ukraine dinañ ko fournir Ukraine nena fu pour permettre force armée yu manam pour mana dimbali ak soutenir opération combat bi nga xamanti won na ko def nena dinañ dinañ Ukraine ba 2025 bi nga xamanteni ci lañ nee na loolu nag mi ngi koy wax si benn réunion boo xamante ni moom Blinken euh, doon na ko def ak secrétaire général bu OTAN bu OTAN Mark Rutte si Bruxelles journal bii di Reuters moo wax loolu aussi tamit euh, journal Reuters journal bii di Reuters nee na Blinken wax na ni engagement bi nga xamante ni président Joe Biden mi ngi koy euh, amoon na ko ba léegi da koy continuer di gën a renforcer OTAN.

bépp déploiement troupe nord-coréen euh, pour jàppale euh, waa Russie da Dankaafu nee na lool boo xam ne dana nekk ñoom dina def benn euh, réponse bu décisive waaw ah, yow moom xam nga da ngeen di réponse bu décisive ngeen di xam waaye daal li leen fi des moom bareetul ak ah, deux mille deux vingt cinq moom ñoo ba pare. seen Cheikh Boy maa ngi lay nuyu baax di la ziar ba tey bokk na si information yi si groupe SMFO mooy que ni neen Russie dafa euh, dañ ko euh, dañ ko pour mu dimbali euh, waa waa Israël pour mu jot si seen otage yaa xamante ni jot na ko yore na ko boobu ba léegi neen Russie mi den si ànd xaritu pays européens yi pour ñu pour ñu libéré otage yooyu otage yi nga xamante ni ba léegi Hamas mi ngi leen téye ki déclare lool mooy que ni mikhail euh, Bogdanov envoyé spécial bu président russe si Moyen-Orient ak Afrique vice ministre affaire bi euh, affaire étranger ak euh, neen première conférence ministre russe Afrique bi nga xam ne doon na ko def si la waxee loolu Russie dina euh, dañ ko dañ ko sàkku pour mu di mu dimbali euh, européens yi ànd ak ay quelques pays européens yi pour ñu dimbali leen euh, waa ek waa Israël mën a jot seen otage yi aussi tamit neen actuellement ni dernier chiffre yaa xamante ni jot nañ ko si Tel Aviv mooy que ni Hamas ba léegi mi ngi continuer di yor seen cent un otage si bande de Gaza bi ba léegi mënaguñu ko jot te ñoom li ma jaaxal mooy que ni neen liñ bëggoon si euh, Hamas am nañ ko mooy que ni Hamas daal foofu dootu ko mën a euh, foofu ko dootu ko euh, dootu ko dootu mën a continuer di jiite Gaza ba tey bokk na si information yi analyse su Allemagne bi dafa ni force armée ukrainien yi am nu réussir pour contre attaque Russie nee na trou bu Russie actuellement ni avancé na lu tolloo ko deux virgule cinq kilomètres ci centre ville bu bu terrestre bi Torets ba daan neen région Torets mi bokk ci région bu Donetsk nan depuis ay semaine ngi nii ay semaine ngi nii force ukrainien yi ñoo ngi tenté pour couper Euh, pont yi nga xamante ni fa la Russie war a jaar pour def offensive si côté Torsk bi mais atta ñoo ngi attaqué mais si euh, côté noor bi ak si côté sud bi mais bataille ñoo ngi bataille aussi tamit si euh, biir dëkk bi ak ak aussi tamit même si immeuble yi tamit waa Russie ak waa Ukraine yi ñoom ñoo ngi ñoo xeex daal si biir ville bi si gàttal. aussi tamit euh, actuellement nii euh, lu tolloog cent cinquante personnes ñoo ngi leen euh, lu tolloog cinquante mille personnes ñoo ngi leen dajale si benn place journal Allemagne bi moom moo wax lu mel si dëkk bi maanaam dëkk bi daal dañ dajale waa dëkk bi toll si cinquante mille lu tolloog si cinquante mille personnes def leen ci benn place. nan actuellement ba légui dal neen armée ukrainienne bi euh am kiwul amul capacité pour euh, pour réussir li nga xamanteni euh, contre attaque bi nga xamanteni mi ngi koy def euh wa Russie nan actuellement ni euh wa Russie euh, dekk bi ñu nan euh, Toretsk lu toll ko 70% ci territoire Toretsk actuellement ni wa Russie nangu nañ ko ba tey bokk na ci information SK News SK News euh, bu télévision arabe SK News dafa déclaré ni Iran euh, li mu yéexee attaqué euh, waa Israël na li ko waral mooy victoire Trump bi nga xam ne Trump am na ko ci élection yi présidentielle yu américain yi actuellement nii ma Trump ginnaaw bi mu gañee dafa leen woo pour euh, di waxtaan ak ñoom euh, ñoom ak waa Iran na daal actuellement nii waa Iran ak waa ak Donald Trump ñoo ngi waxtaan ci di négocier ginnaaw bi leen euh, waa Iran avertir ku ne ku nekk xam na ni première bu njëkk ba avant Iran de fayu États-Unis dafa am lu mu ko njëkkoon dik mooy que ni dinañu def cessez-le feu jàmm am mais bi mu toogee xar-xaar gisu loolu si la ni comme loolu li ngeen ma waxoon dara amu si li may def mooy fayu te ba mu jógee noonu la def defee mooy que ni dafa fayu ñu xool nag digganteem ak Donald Trump ñoom fu ñuy mujje ba tey bokk na si information ne Niger Niger ak Russie euh, actuellement ñoo gën a ñoo ngi gën a renforcer seen. seen diggante seen coopération surtout si coopération minière bi nee na plaisir euh, maanaam ginnaaw bi nu gisee gisee bi nu ginnaaw bi nu gisee gisee yu bëri ñoom ak partenaire Russie si côté domaine privé ak public nee na mëne nañu ay marche euh, première con surtout su ko neenu si première euh, conférence conférence ministérielle Russie Afrique bi amoon euh, jot nañu euh, maanaam ministère Russie bi ak euh, bu Niger bi jot nañu gise ba waxtaan si domaine yu bëri nee na ministère Niger bi sax wax na ko moom Ousmane Abarchi moom nee na déba jot nañu développé. coopération yu bëri si domaine surtout si domaine minière bi waa Niger nag fan yi passé am na ay groupe touriste yoo xamante ni ñëw nañu euh, joxe seen ngànnaay ni actuellement ni pare nañu pour am euh, am ak jàmm dëkku dëkku euh, di Niger ñooñu ay touriste lañu woon mais ñooñu ñoom neen génn nañu maanaam génn nañu si guerre bi nga xamante ni ñoo ngi ko doon def ak waa Niger moo tax euh, boo yoree doole doole ju bëri ñu xam ne yor nga doole li ñuy def mooy mujj dellu ginnaaw. ba tey bokk na information yi Donald Trump nee na choisir na Elon Musk ak euh, Vivek euh, Ramaswamy pour ñu diriger pour ñu diriger efficacité gouvernement pour ñu diriger nouvelle organiser organiser efficacité gouvernementale nee na mi ngi leen ko nommé le 12 novembre moom Elon Musk ak euh, Vivek Ramaswamy ba tax na moom nee Elon Musk moom moo moom moom moo moom euh, spatial ak euh, Tesla ak X ancien Twitter aussi tamit euh, tey si gis naa si information ñu ni euh, Elon Musk jënd na McDonald jënd na McDonald moom Elon Musk ni mii nag am na doom bu jigéen boo xamante ni moom dafa changé sexeem dafa changé sexeem ginnaaw ginnaaw bi Donald Trump jëlee réew mi nag moom dafa ni euh, comme Donald Trump dafa ni ay change sexe yooyu yëpp da koy interdit biir états moom li muy def mooy gàddaay pendant quatre ans soog a ñëw waaw bu ne pendant quatre ans dana dellusiwaat États-Unis mais instant bi daal neen day génn États-Unis te kooku doom bu jigéen bu Elon Musk la mais comme ni ma ko waxee dafa changé sexe ba tax na mbokk yoo xam naa foofu laa leen di tàggoo di leen wax ne jàmm ak jàmm suba ak jàmm incha allah.